sunu borom moo la nital ba nga xam li nga xam ne mooy li gën ci réew mi nga nangu ko parce que am nga expérience parce que xeexkat nga parce que réew mi daf laa yittil réew mi daf laa ñor te xam nga li nga xam ne mooy li gën ci Sénégal mooy li nga def ni tey nga ñëw rejoindre le président Macky Sall bëgg nekk ci ginnaaw am ànd ak moom di liggéey loolu moo sabab mbooleem waa APR yi teew fi nii ñoom ñëpp. ngir di la sargal ngir di la dalal jàmm di la xamale li ñu fas yéene mooy ànd ak yow liggéey. kon faw ñu félicité la faw ñu sargal la di la souhaiter la bienvenue di la xamal ne fi nga ñëw ay jàmbaar nga fi fekk sa ay nawle nga fi fekk te nii nga leen invité yow itam ñu nangu loxo bi nga leen tàndal ngeen ànd fas yéene liggéey ngir ndamul président Macky Sall ngir ndamul dëkk bi. et au soir du 31 ñu gagné élection yi ngañaay boo xam ne ngañaay bu leer nañ lay doon. foog nga jógee nag foog naa dara desatu fa ndax la fa nekkoon yaa fa nekkoon ak yeneen i jàmbaar ñëpp dikk nañu ñëpp fàq nañu dikk kon dara desatu fa. parce que di nga dañoo yeewu léegi nit ñi li ñu soxla mooy stabilité nit ñi li ñu soxla mooy émergence nit ñi li ñu soxla mooy koo xam ne dafay liggéey nit ñi li ñu soxla mooy koo xam ne dafay topp ci ginnaaw kilifa diine yi di leen wormaal jubo ak ñoom. def leen bàyyi def leen sëriñ di déglu seen i ndigal nit ñi li ñu soxla mooy ku yërëm askan wi te loolu xam ne ne ci président Macky Sall la nekk ak ñi mu àndal. di la wax ne as suñu xel dal na parce que lii lañ soxla jeune fii bu engagé wu xam lan mooy réew mi xam lan mooy taxawaayu réew mi rawatina ci moment bii nga ko defee mu bari ay yëngu-yëngu torop xale yi du jaar fu nekk muy politique boo xam ne siine ci ni ñu ko wootee ci lu xew. mooy parti bi nga nekkoon muy parti Pastef di woote violence di woote kilifa amatut di woote démocratie amatut nga mën leen ne woon ginnaaw xam ni réew mi jàmm moo ko yor xam ni réew mi stabiliser moo ko yor xam ni réew mi defar ko moo ko yor nga xam ne dangaa bokk ci ñu war a defar réew mi ëllëg ngay ndaw war a relever sa defi kon loolu mention spéciale ñëw ngeen ci heure bi ñu ko soxlaa di la wax ne nag affaire gépp ñu ngi lay dalal waaye rawatina ñi nga xam ne yéen a bokk même génération muy kuréelu jeunesse féminine gi nga xam ne si ne ñëw nañ ñu ngi ci sa kanam ñu ngi ci sa ginnaaw fa yéene nañoo ànd ak yow ci liggéey bi ba lii nga sumb ñu am ndam lu seet wicc le 31 juillet ñu jox président Macky Sall ndam lu seet wicc bu dul am benn laam-laamee te rafet nañ ci njort. mu nekkoon fi di liggéey ku ne xam na ne ci social la doon dox social nag mooy fexe ba xam jafe-jafe doomu aadama yi nga xamante ne ñu ngi ci tuubaa mu xar ci tànk tubayam ak pa ak parti bu mënoon a nekk muy Pastef ci laa ko xam man mu doon sama rak doon sama xarit doon sama lépp mu ju doon liggéey liggéey boo am solo bari na ñu fi teew tey ñoo xam ne euh, fu mu leen woo insha allahu taala dees na ko fa wuyu kon bu yàlla dogalee mu ñëw fii ci parti bi nga xamante ne mi ngi mooy parti bennoo Bokk Yaakaar ànd ko ak euh, Antoine Diome pour liggéey ci social kum ci woo war nga ko wuyu si ndax man biñ ciy waxtaan démb sensibiliser na ay nit ñu bari ñoo xam ne si seen kër amul ndox te fas nañ faa yéene yóbbu ndox euh, événement tabaski bi jub si am na ay ndimbal yoo xam si jëm na ci ñoom kon kooku social ci lay dox ma moom doxul ci yii xew léegi quoi ndax damay bokk ci parti boo xam si dama bëgg poste wala damay bokk ci parti boo xam si dañ war a fal nangam wala dañ maa far a fal nangam moom social lay dox. te social nag mooy fexe ba xam jafe-jafe ay nit ñi nga saafara te moom mii xam na li nga xamante ne moom la nit ñi jafe-jafe yi nit ñi jànkoonteel te mu ngi ci dox bu baax a baax a baax a baax a baax. ab liggéeykat la kuy dimbali askan wi la ci lépp loo xam ni ngëneel la loo xam ni man naa teew ci ay loxoom di ko jottali askan wi bokkoon feneen bu demee nag ba nga xam ne tey ñëw na. xelam may ko mu ñëw ànd ak président Macky Sall ngir jàppale ko ci lépp waaye jaare ko ci buntu monsieur le ministre ab Abdoulaye Dione euh, buntu yi moom foo ko jaare rek te jàppale kilifa gi tax laa jóg baax na waaye mu dajee xew-xew bu mel ni bii am ñu am fi boo xam ni dañoo war a tànn ay ndaw yuy dem teewal askan wi ci péncum réew ma ah yàlla dogal nag mu ñëw dajeeg loolu mu yëkkati kàddoom taxaw di ko dox waxtaane ko ñu ko séqal ngir jàppale list boobu ba bu ñu yëgee ci euh, bis bañ ko war a def liste bi nga xam ni moom lañu tànn benn boo yaakaar teg ko fi Eh, ñu am na lu yaatoo yaatoo yaatu fii ci Touba ci département Mbacké ak ci commune Mbacké ak daal sax ci Sénégal gépp li waroon tey suñu daje fii mooy Astou Gawane képp koo xamante ni xam nga ko ci politique ci Pastef nga ko xam ci la daan yëngu daan ci def politique euh, sociale ak développement ndax ñun loolu mooy suñu politique ndax loolu lañ jàppe tamit muy politique di ci yëngu depuis 2017 ba 2022 yaakaar naa loolu du ñaari fan du ñe fan tey jii nag li waral suñu jóge fa danañ am lu tuuti luñ ci expliqué ndax comme ni ko kii waxee sànq rek ñun post taxuñoo jóg ndax su fekkoon ne poste lañ fay xaar ak liñ fa def yëpp duñ ko fa am mais dafa faral dafa fekk ne mbir muñ nekk te amuñu ci considération bi nga xamante ni moom lañ ci war a am boole ko di liggéey ni ñu ci war a liggéeyee suñu temps fekkeewu ko suñu alal fekkewu ko suñu dara fekkewu ko te amuñu ci benn considération day taxaw na nga xool yow sa bopp ñii fan lañ la teg moo tax nag tey jii ñu wan parti boobu ginnaaw ja bokk na tamit ci investiture yi nga xamante ni moo passé niñ ci doxalee pour gën a leeral ndax Sénégal dafa xaw a naqaree waxee ndax Pastef ñun ñoo ngi ci depuis 2017 ba 2022 ñu jël jigéen boo xamante ni un an la def ci parti bi investir ko ci élection législative yi loolu yaakaar naa ñàkkal fu nit ki la manque de respect la donte nag poste taxu ñoo jóg mais dañoo woote woon na nit ku ne place bi nga mérito nañ la ko kon comme ñun ñoo ngi liggéey ci bi respecte texte bu parti bi ak lépp lu muy def liñ ci moom tamit nañu ko jox voilà donc loolu moo tax tey jii ñu def suñu déclaration à partir wi bépp activité boo xamante ni ñoo ngi ko daan amal ci biir Pastef tegani nañ ko jël nag suñu yoon ndax olof dafa wax ne euh, ku lamb yaa tey daagu fañ la nobee te gis nañ ne Pastef nobatuñu gis nañ ne Pastef nobatuñu c'est pour ça que nag ki nga xamante ni mooy le ministre de l'intérieur Antoine su Diome gis suñu ay activités yi nga xamante ni ñoo ko doon def a travers bi di Pastef mu séduire ko mu woo ñu toog waxtaan ak ñoom fas yéene ànd ak ñun liggéey jàppale ñu ci politique de ak social bi nga xamante ni ñoo ngi koy def te fas yéene nga ànd ak moom liggéey ak moom ci li nga xamante ni moom lañu ñu woo ndax ñun loolu lañ jàppee mooy politique politique nag ku ne xam na ne mënut a jàpp mënut a ñàkk parti au pouvoir ak opposition waaye dañ jàpp ne lépp lu man di doon rek intérêt réew mi ñoom moo moo leen war a ñor ndax ñoom ñëpp ku nekk da nga ne dama a defar réew mi kuy defar réew nag doo yàq te ñun jeunesse jàpp na ne ñun ñoo war a defar réew mi ci bu nekk nag ñun defar réew mi kon war nañu moytu yenn yi nga xamante ni amul benn njariñ ñu di ko muy li nga xamante ni mooy yàq di woote di def ay ndaje ay bakkan di ci rot yaakaar naa ku leen am réew moo la ñor dangaa bëgg a defar réew am na yoo xamante ni war nga koo man a mooy ñu fas yéene nag soobu ci fas ci li xamante ni mooy élection yi ñu jëm si mu le 30 juillet incha allah fas yéene cee am ndam ndax président Macky Sall dafa jot nag lu musul am ci Touba le 31 incha allah ñu am ko te am nañ ci yaakaar te dinañ ko liggéey nag ndax bu dee jom mi ngi fi bu dee fulla mi ngi fi bu dee fit bi tamit mi ngi fi te ndax président Macky Sall ku nekk xam na ne autoroute AP euh, Ila Touba bii une heure demi nga dem Dakar doxi sa soxla ñëwaat loolu moom moo ko fi indi. hôpital niveau 3 ku ne ku ku nekk ku nekk wax santé rawatina jigéen ñi nag ndax ku ne xam ne santé jëriñ bi nga xamante ni am na ko ci askan bi. tey jii mara day taal yi mais amul kenn koo xamante ni yaa ngi jàmbat tawat di am looy soxla tey jii Dakar pour dem faju ji ndax lépp indi nañu ko fii Touba kon dañ ko war a sant war koo gërëm jël plus de 32 milliards investir ko ci. ñu jóge ci loolu assainissement man bokkoon naa ci daaw ñi nga xamante ni dañoo yoroon seen ay moto pompe di jàppale sinistre yi ci ndox mi dafa mel ne nag suñ jàngat boobu moom dégg na ko ndax jël na plus de 25 milliards def ci assainissement fii ci Touba tey jii boo génnee Touba travaux yi commencé na loolu kenn mënu ko dindi marché Ocass pavage yi budget bu 200 millions euh, première pierre bi teg nañ ko ba ñoo ko commencé liggéey. loolu tax na nag suñu bi gi sëñ Mountakha kontaan ci moom ba ne ko sëñ Touba la ko bàyyee sëñ Touba nag ñun sëñ Touba ay taalibeem la am kon nag ñun sëñ Touba pare nañ taxaw pour fayal ko ba ba fayal sëñ Mountakha boobu noonu nga xamante ni moom moo la sëñ euh, Macky Sall dama la ko amee danañ ko jàppale ci lépp lañ luñ man nag muy politique sociale développement ci lépp lu mën ni doon dañ ko ci jàppale nañ xamal ni Sénégal fi mu toll nii jàmm la soxla soxlawul lenn du stabilité ndax jàmm ci la lépp xaj boo xoolee réew yi ñu war tey jii fu mel ne Mali ma ngay tàkk Burkina Faso ma ngay tàkk Guinée ma ngay tàkk yàlla bu mu egsi fii ñun am nañ pétrole am nañ gaz am nañ lépp loolu bu fi duggee ñun nan la ñuy def kon nag ñun jàmm lañ soxla tey boo duggee ci àddina bi ñu ngi jógee ci Covid 19 crise mondiale bi jógee ci Covid 19 ñoo ngi ci guerre Ukraine Russie fi mu toll nii am partout dañaa Sénégal dafa metti mais du Sénégal moo metti adduna bépp moo métti instant bi ndax ñàkk jàmm kon nag képp ku ñuy woo ci ñàkk jàmm ci Sénégal bii nañ xam ne bëggul Sénégal Sénégal stabilité la soxla jàmm la soxla suñu kilifa diine yi jàmm la soxla coow li nag mën naa bari waaye Sénégal kenn du ko taal ndax ku ne jéem nga ko te réussir ko te kenn du ko ci mën a réussir nag ci àdduna kenn du ko ci réussir suñu kilifa diine yi ñaan nañ ko fi Sénégal bu njëkk bi nga xamoon mooy mag day day day yërëm xale respecté mag ñoo ay kilifa nit ñii ñëpp ku ne am na ci koo xamante ni bu leen la defal nga def bu ne la bàyyi nga bàyyi léegi nag Sénégal bi gis mooy fexe ba changer jeunesse bi taxaw saaga kilifa diine jël ci ndox mi naan nga yemale boobu man boobu bañ Sénégal nañ ko fi jëlee te indiwaat lañ lañ lañ lañ moomoon. koy nuyu lu baree bëri di ko ziar di ko remercier nag di nit ku bëgg président Macky Sall di ku koy liggéeyal nag lépp loo xamante ni mooy jëmale réew bi kanam ci lay dox ndax woo ma ci politique politicien mais bu ma woo ci politique développement dama ko ci wuy ndax moom tamit nit ku social la di nit ku baax maa ngi ko nuyu bu baax a baax di ko di ko gërëm ma limee damay juum sama mbokk yi taxaw nañ sama famille yi maa ngi ziare ñëpp ak jeunesse féminine bi nga xamante ni ñëwoon nañ ci bokk APR ñoom tamit maa ngi nuyu yu bëree bëri di leen ziar jërë ngeen jëf leen